lu doy waar Birahim ak coow li ci am yëpp ñu ngi wéy di cakat cakatee suuf askanu Sénégal. réewum Sénégal dafa am benn problème boo xam ne mooy problème majeur mooy prédation foncière bu ñu koy wax mooy euh, fépp foo xam ne fa gis poche gis fa pàcc boo xam ne mën nañ ko euh, jël morcelé ko jaay ko te lépp mu ngi aju ci mbirum koppar. xam nga mbiru euh, aéroport bi avant ñuy toxal aéroport international Léopold Sédar Senghor muy am aéroport Blaise Diagne bu jaas am na ñu doon tabax muy cité Tobago bii. nga xamee ni dañu ne ni dañoo xëcc mur bi ba ñoom ñu am place bu ñu mën a tabax waaye ku leen ko joxoon benn kenn ci administration nguur gi ci maanaam ñi nga xamee ni ñoom ñoo yor wàllu séddale suuf ñoo leen ko joxoon. muy ay impôt ak domaine bu ñu demee ba tey ñu jël lu tollook 557 euh, ci ay parcelles. Euh, ñii di euh, waa caisse de dépôt et de consignation ñu am lu ñu leen dénkoon ci biir aéroport. président de la république ci boppam wax ko jébbal leen ko pour ñu mën ko viabiliser di ci wax wàllu ko euh, verdure ak paysage ak yeneen ak yeneen bu ñu demee nag ba jël suuf soosu nag ñenn ci ay nit di ay euh, euh, autorité ak yooyu bëgg ko pàccoo seen biir mhm. loolu c'est un problème te donc li ñu doon wax ay loi foncière ak yeneen ak yeneen yëpp maanaam li ñu doon liggéey nii yëpp fourage lay doon ci ñoom mu doon kon beneen scandale Abdoulaye mbaw waaw euh, beneen scandale euh, te du guleet si wàllu suuf xam nga ñun ñii di ay nit dañuy woy ay omnivore euh, xar yeeg gileem ne ak yeneen leen woowee ay herbivore mhm. waaye dafa am ñoo xam ne day ay mëqkatu suuf lañu. Mhm. ñooñu leen war a mën a duppee ay ternivore mhm. parce que suuf rek la ñuy la ñuy gis te bu du yoon. Euh, jamonoy Ablaye Wade ñu ne Sicap Foire tas nañ ko ñu nekkoon ci nguur gi ñoo ko njëkk paacoo Cité Góor gi tas nañ ko ñu nekk ci nguur gi ñoo ko njëkk paacoo ñu ne domaine maritime bi gis nga ni ñu ngi ko doon caxa caxatee ba ñëw léegi ci fii nga xam ne moo di euh, aéroport ancien euh, ancien aéroport di Léopold Sédar Senghor donc mu mel ni wàllu suuf lu tax ñu ne toujours autorité bi ki nga xam ne moo am nombal tànk ki nga xam ne mooy homme politique bi moom kese moo ci am yoon ba pare moom moo ci war a am njëkk paaj yàggul tuuti amoon na ko fi mu son am problème wax na ci explication explication yu mu amoon yu mu amoon yu euh, yu mu explication yu mu joxe woon ni effectivement ba dafa doon toppatoo terrain bi nga xam ne mi ngi situé dans mhm. l' ancien hangar des pèlerins mhm. donc ça tout dire kon ñoom la ñu wax daanaka am na parce que pasa paa paacoo nañu daanaka suuf si nga xam ne foofu lañ koy waxee te bu wéyee sax file ay at euh, Mansour baadoole yi dootuñu am suuf bu ñu dëkk baadoole xanaa bu xamee cosaanam mhm. Dakar doo nga dëkkuwaay te Dakar sax nag boo mosee dëkk faneen da nga xam ne Dakar neexul dafa xat ñi ñiy jot suuf ci anam goo xamante ni yomb na anam goo xam ni leerul anam goo xam ni bàyyiwuñ ci xel infrastructure euh, te boo amee seetlu sa yaakaar day tas 2012 ak léegi juróom-ñetti at yi parce que bi ñuy daaneel cité Tobago dañu amoon yaakaar ci ni xëy na dañuy préserver li nga xam mooy infrastructure bu mel ni aéroport ba kenn amul sañ-sañu def construction boo xam ni mun na indi laneen cité Batrin juddu fii nga xam ni daanaka bu avion day wàcc ba yu xamti koo xaw koo laal c'est après cité Batrin même ñun fi ñu nekk nii ci réew mu normal sax waratu nekk cité boo xam dafay existe parce que nekk ngeen fi avion yi di wàcc kay yegg. Mhm. sans compter ñi nga xam ni léegi nag dañu daaneel mur aéroport def fa ay lotissement comme ni ngeen ko gisee nii ci euh, image yi cest dire que réew moomu ak bi ñu commencé daaneel cité cité Tobago lu fi changé entre ba gouvernement bi delluwaat sax foofu nag ñu saxal aéroport AIBD éliminé bu Dakar am ndaa toj ndaa wax dëgg yàlla loolu moo jëkk jaaxal ci ñoo xam ne bëgg nañu am réew avancé ci wàllu développement ci côté aéronautique am benn aéroport éliminé aéroport bu Dakar ak ni mu amee woon au niveau